wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat turu sëriñ Habibu mi mu àndal di sunu jëwriñ ak mboolem turu waa Tuubaa ci kanam ñi teew ak ñi teewut di la siyaare ñëw ngir feddle sunu pas-pas ak sunu jaayante ak sëriñ bi feddle sunu laxasaay fas yéene ànd yow liggéeyu sëriñ Tuubaa bii mu ci doon dox ba agsi fii ñu baaxoo bu at mi jeexee bala noo tàmbaliwaat li ñuy defaat ci at mi nu dikkaat gaawal la li nga xam ne moom lañu ñu ak fi ñu toll gaawal li nga xam ne fi lañ jëm li ci jiitu nag cant goo xam ne mbooloo mépp maasi nañ di la ko sant ngir taxaw ak yëg ak itte ak bàyyi xel goo bàyyi xel liggéeyu Touba ci kanam ak waa Touba ci kanam di seeral sunu cant yi ci sëriñ Habib mii di sunu jëwiñ ànd ak nun liggéey di sunu kilifa te man nu sëkk kilifa te doxee ak ñun mbooloo mi doxin rafet wàccee boppam ba gën a woyof ñëpp doon ab taalibe ci ñun biir taalibe yi doon ko xàmmee jukkoom ja ak xolam bu set man na sëkk njiit ñu ngi sàkku yi nga ñaanalal nu ko moom itam suñu borom yàggal ko fi te yàggal nun ñëpp ci ginnaawam bakki Sëriñ Tuubaa mbooloo mi ma àndalit it ma lay seeral na leen ne ñoom ñëpp ay borom pëstéef lañ ay borom itte lañ ñu ñoom lépp guddeeg bëccëg bu ma ci tuddee Abdou Fatah gi mi nga xam moo ciy jëwiñ ci loolu dana mën a yóbbaale ci des waaye ñoom ñëpp noonu la ñi ma tudd ak ñi ma tudd ñi nekk bitim réew noonu lañ demee ñoom it fañ nekk liggéey bi dong moo leen gën a itteel ci seen it seen ittee bopp kon loolu it maa ngi la koy seeral di sàkk nga ñaanal leen ñoom itam kenn ku ne lay ak bëggam saa borom defal ko ko defal ko waatu Touba ci kanam. noo lay nuyu bu baax sëriñ bi te di la ziyaare di fàttali sunu jaayanteeg sëriñ Touba di ñaan suñu borom yàggal la fi lool te wéral la dëgëral la kattanal la ci barke borom tubaa di sant kilifa yi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal jiital ci sëriñ Abibu kaddu yi nga xam ne moom la sëñ Abdoulaye yëkkati ci sëñ Abibu rek sant sëñ Abdoulaye mi ñu àndal ak mbooleem ñi nga xam ne la ñu seqal liggéey bi noonu mu ko waxee ni ñu ko baaxoo defee Touba kanam mi ngi ci juróomi at ba mu tàmbaleeg léegi li fi jot a li li Touba kanam jot a dajale ci juróomi at yi toll na ci juróom benn milliard ak juróom-ñetti téeméeri million juróom benn milliard yi duggaat na ci dëkk bi li nga xam ne nag moom lañ ci jot a def daaw dañ koy tàmbalee ci wàllu ci wàllum njàng ak lu aju ci xam-xam bâtiment bee nga xam ne naaloon nañ ko ca université ba yàlla dogal na peinture nañ première couche bi euh, lal nañ euh, peinture bu njëkk bi carreaux teg nañ ko fi mu ne nii ña ngay monter palanteer ya ak bunt ya daaray alxuraan yi nga xam ne tamit naka jekk daan nañ ànd ak ñoom ci liggéey bi fi mu ne nii toll nañ ci luy tollook téeméeri daara ak juróom-benn fukk yoo xam ne lañ gën a yittewoo ci ay mbaar yu dongay jàngee wala ay wanag wala ay néeg ña ngi cee jàppalanteeg ñoom daaw def nañ ci juróom-benn fukk ren ji amaat nañ ci naalu juróom-benn fukki daara. am na ñeenti daara yu ñu wooyee daaray tànneef yoo xam ne Touba ca kanam ko bëgg taxawal nga xam ne ñooy fay sëñ ba fay jàngale def ko ci yenn gox yu fasanti ko benn ba noppi na ba warees na koo daloo sëriñ daara yi nga xam ne ñooy jàngale ci daara yi tamit daanañ jàppalanteeg ñoom ci euh, dawra takwiniya boo xam ne dañ ciy dolli koo xam-xam bu jëm ci wàllu tajwid xam-xam bu jëm ci turuxu taxfiis anam gi ñuy jàngalee wala xam bu jëm ci idaara te mooy ni ñu yore daara loolu jot nañ cee tàggat ñeent téeméeri sëriñ daara ak ñeent fukk ren ji amaan nañ ci naalu téeméeri sëriñ daara ba tey lu jëm ci dimbalanteeg daaray alxuraan yi am na lu ñuy wooyee ndabul daara ta mooy fàggu ay ndab teg ko gépp kër goo xam ne am na yéene saa su toggee añ wala leer wala reer wala ndekki mu tibb cee jox daara ja ko gën a dendal loolu tamit liggéey boobu tàmbali nañ ko ba fi mu ne ñu ngi ciy dox ñu wut camion boo xam ne nag bépp daara joo xam ne foos ba daa fees day joxe ñaari junni rek ñu waaye falal ko ko ngir gasoil ba bu ko defee oto ba dem fa wiideel ko foosam Eh, li ci toppaat mooy lu jëm ci eh, wàllu këruk asaka yi nga xam ne joxe woon nga ci ndigal ñu àndoon ko ak Serigne Saliou moom Serigne Mourtada ak Serigne Mbacke Abdourahmane liggéey boobu taxaw na ba ma ngay dox fi mu ne ña nga ca soññee ak yaatal ya ak ak jàngalee ka leeral lépp lu jëm ci wàllu asaka bu lu jëm ci wàllu wér yaram ñeenti bëri bu fajukaay yi nga xam ne moom la njëkkoon a naal yooyu moom noppi na ba fi mu ne ña nga cay fajo am na yeneen ñaar yoo xam ne benn baa ngi ndaam daaru alimul xabir beneen baa ngi daaru beneen baa ngi eh, Touba Njaareem yooyu moom daanaka mi ngi waaj a noppi ren jii bu ci yàlla àndee am na yeneen ñeent yu yees yoo xam ne naal nañ ko benn bi Alié lay doon beneen bi Gédé lay doon beneen bi Mariana Siis lay doon beneen bi Sam lay doon bu ci yàlla àndee. lu jëm ci wàllu wér yaram ba tey am na eh, luy tolloog weer million yoo xam ne waajal nañ ko ngir jàppalante ci bërëbu fajukaay yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi lu jëm ci wàllu defarum yoon yi. am na ay euh, gox yoo xam ne defaroon nañ yoon ya fa jëm waaye nag dafay fekk ne bu ndox taawee foofa ndox ma léeg-léeg am fuñ ko jëmee ñu xalaat ne nañ fa def lu mel ne ay teen yoo xam ne fàggu nañ ci lu tolloo téeméer ñaar fukk ak juróom-ñetti teen yoo xam ne benn bu nekk lu mat juróom-ñaar fukki mètre cube bi ndox lay jël bu tawee ndox ma foofa lay dugg ngir euh, wàññ wàññi coonay taataayee am foofa. bu ko defee lu mel ne yoonu ndaamaatu wa fi ñuy wax virage gar bu ndaw ba romb hôpitalu ndaamaatu diggante boobu moom at yi yëpp yoonu daa yàq woon bokk na ci naal yi am na ci diggante boo xam ne moom béton lañ koy def la ca topp nag waa AGEROUTE ñoo koy defar ndax ñëw nañ fi ba ñu waxtaan ak ñoom ba ñoom loolu jubu leen bañ ne dana am wet goo xam ne ñoom danañ ko ca jàppe la ca toppaat mooy yoonu Tindodi yoonu Tindodi amoon naw yoon waaye yoon wa dafa xawoon a yàqu ab rang-rang la woon rang-rang boobu am nañ yéene yeesalaat ko natt nañ ko ba xayma ko ba noppi xëy na nag euh, man naa am bu yàlla defee tawféex doole ji àgg ci ñu mën koo ñuulal ñu faaf ko ñuulal waaye bu ci àggul ñu defaraat rang-rang ba ba dem baag ba gën a mën a jàppandi lu jëm ci wàllu euh, njëmbatum garab am na liggéey bi moom Mbacke yaa ko dalo woon garab gi ci njëkkoon yaa ko jëmbatoon léegi foofu la toll mooy ci diggante Mbacke ak taxawal nañ tamit ab pépinière boo xam ne ci la ñuy jëmbat garab yi fi mu ne nii luy tolloog ñaar fukki junni garab ak ñaar maga ca yoo xam ne taxaw na ba noppi ko defee lu jëm ci euh, wàllu mbalit tamit bëgg nañ cee jàppalanteeg soxna yi lu jëm ci wàllu leeru dëkk bi moom tamit luy tolloog fukki junni làmp jotagun nañ koo monté euh, mooy lamp yi jëm ci leeru dëkk bi lampi corniche boobu nga ñu joxoon digal tamit moo féete noonu ci kaw moom defar nañ ko ba noppi ba tey lu jëm ci nawetu daaw ginnaaw bi ndox mi duggee ci ay kër yu bari te nga yëkkati woon ci fanweeri million joxoon ko Touba ca kanam fàggoon nañ ay moto pompe ak ay auto vidange ba luy tolloog daanaka lu ëpp ñaar téeméeri kër ak ay ay ay mbedd ak yenn gox goxaan yu baree bari ndox ma génne woon nañ ko teewul nag ginnaaw bi Touba ca kanam génneewaat na juróom fukki million lu ko luy tolloog juróomi téeméeri kër kër gu nañu jox la ñaar fukki junni ngir dimbalee ko ginnaaw ba ndox ma génnee ba nopp lu jëm ci wàllu dimbalanteeg ñu néew doole ci social te sëñ Mourtala am sëñ Abdou jiite ko moom tamit ren ji def nañ ci luy tolloog ñaar téeméeri million ak fukk euh, ba tey lu jëm ci yi nga xam ne day bàyyikoo ci bitim réew mbokki Touba kanam ya fa féete ñaare dañ ciy faral di jàpp ren ji indi nañ ñetti camion yoo xam ne moom lañ jox waa sapeur pompier ak benn ambulance lali hôpital yooyu tamit bokk na ci li ñuy joxe ñoom it seenu njàmbaar tax na ba liggéeyu ren bi lu man ñetti téeméeri million ak juróom fukk dugal nañ ko ci koppari Touba ca kanam ñoom waa bitim réew. wàllu ndoxum naan eh, Touba ca na ñeenti camion ndox yoo xam ne bërëb yi nga xam ne léeg day manqué ndox yooyu dañ fay yóbbu ndox di ko fa maye. am na luy toll juróom benn quartier yoo xam ne tamit yóbbu woon nañ fa ndox amaan nañ na bi yeneen fukki quartier yoo xam ne war naa am ndox ren. bu ko defee soxna yi nga xam ne yàlla dogal na ñoo gën a ci liggéey Touba ca kanam bi fas yéene nañ leen a jàppale ci wàllu xam-xam ngir métier yi nga xam ne eh, métier yi soxna la te ñu koo liggéeyee jàppale ci tàggat leen ci wàllu xam-xam ba buñ ci jógee mën a demal seen bopp ci wàllu yëngu-yëngu yi nga xam ne moo jëm ci wàllu defarum cere defar ay ak yeneen yu ko euh, yàlla dogal na tamit ci wàllu yëngu-yëngu ngir dëkk bi am xëy yokk fi fàggu nañ luy tollu juróom-ñeenti hectare fële ci boori Daaru Rahman ngir fas yéene faa tàmbali mbayum dër tey jàpp ndal lu jëpp lu jëm ci wàllu lekk lu jëm ci wàllu lekk bu ko defee tamit euh, Touba ca kanam fàggu woon na suuf soo xam ne da ko bëgg def makkaanum boppam ba ren jii bu ci yàlla àndee bëgg nañoo tàmbali liggéey ba bu ko defee mu doon makkaanam a ca kanam kon loolu mooy kaddu yi nga xam ne moom lañ doon yëkkati ci ndigalul kilifa yi di sant bu baax a baax Mbàkke jërë ngeen jëf. gannaaw ba nag sant suñu borom sant bi. ñoo ngi leen di sant ci taxawaay bu rëy bii. taxawaay bi fi ñu ko tàmbalee ba mu agsi amul benn taxawaay boo xam ne mën na koo gën a ëpp njëriñ kon dégg naa kaddu yi fii Fata. man daf noo woon li ngeen weesu ci liggéey bi. mu yéeme lool te kon loolu moom. alhamdulilah rabbil aalamiina kañ leen dong dong dong laa ci mën a teg ndax seen liggéey bii kat du liggéey caaxaan caaxaan caaxaan yoon yóbbu ko caaxaan taxawulu ko caaxaan doxalu ko waaye positif moom amul lu mu mënut Tuba léppam lenn la muy borom léppam lenn la muy borom buñ ko gisee buñ si noppee gis ci borom rek la rek la nekk. ak yonent bi mu ko joxeñ jox ko ca ndigal. amatul beneen. leneen leneen lu muy def. ci loolu rek la nekkoon. kon nag alhamdulilah rabbil alamin ci loolu la nekkoon ba. tawfeex mu jógoo sunu borom booleel. tax mu wëgg mbooloo. moo xam ne caaxaan taxu leen a jóg. dañoo wan gan fàtte seen bopp maanaam maanaam dañoo daane seen bopp. dañoo rootal seen bopp. ci li seen kanam muy adduna. jóg nag bëgg tegu ci yoon wu leen mën a musal ba àjjana alhamdulilah rabbil alamin kon moo jur mbooloo mi li jur bari na waaye loolu mbooloo mi kon ca loola la judd kon nag caaxaan doxalu ko lenn dong ko mën a doxal muy pësteef akuk dogu akuk dëggu bañ a gis dara nag dëggu ngeen ci jaayanteeg Sëriñ Tuubaa fas ne ko liggéeyal ci dëkk bi loola na wér rek na loolu wér rek fu mu toll nañ gën a wér bu loolu amee doxin mi day gën a yomb tey am yéene naa ko sañ sañ bi muy doy sëkk di tawfeex it ci xalaat ji indi mbooloo mi sañ bi muy tawfeex la ci muy sëtu Sëriñ Tuubaa fa tabaarakallaahu mën a ànd man-man mënut ci ñàkk ndax ñu mbokk bari na ñu mbokk sëñ bi te lii mu mën mënuñu ko loolu kan cëram la kon nag nun mboola min maa ngi yéen noo ko bokkoon nan wéy rek nag nan wéy rek bu nu dara nag gàllankoor nan xam ne nag euh, gàllankoor yi moom bari na mi ngi suñu wet fo ne mag na ko fa nan wéy nag rek ci kaw nag nu dëggu te dogu dafa seen i wéy nag fa seen i wéy rek nag ko bokk da wax bi ñun ñëpp ñu kuy murit rek foo mën a nekk noo ko noo bokk di murit kon na kay ginnaaw ñaari ñaari téeméer. waaw ma ma man man man man waxoon naa leen ne waxoon naa leen ne lu lu kenn di def rek man danaa ci def juróom-ñeent loolu laa ta waxu laa tàmbale woon ak ñoom juróom-ñeent sàddex ñoo xam ne amul bëgg nañ ko teemuñu ko maa leen maa leen maa maa maa maa leen defal maa leen defal seen seen cër loolu léegi yokk naa ko boobu téeméer laay def téeméer mu risaala ma maa leen defaale ah na ko jëpp dégg ba mor yëpp nañ ko dégg benn bu ne rek ñaari na fexe fi ñaari foo mën a nekk man ak man sama wàllu bopp yii ma àndal man amuloo naq ci ñoom ndax xam naa suñu tuwaay lañ bëgg suñu tuwaay la ko xas bëgg Mbàkke gisoo si kisi kooku wajalilaahi maskani tubabat misras mi abijaayi xayri ma nabat